waaw Youssou Dieng saala bu waali Seck léegi la woote coupé nee na naa la jox numéro Kiné sa doom la sa lépp la bul waxati lu mel noonu Kiné yaa bari ay mbokk te dëgër gat te man am na yoo xam koy def ba pare sa mbokk yi woo ma quoi damay am lu ma métti ndax ñii samay xarit lan ñii samay waay lan xam nga Youssou Dieng ni ma mel ak moom ak ni mel ak Waly léegi la coupé Kiné foog naa dindi na vidéo bi sax vidéo bi xool naa paasam mais gisatuma ko fa Kiné xale nga concentré wul sa vie yow dara jombu la yenn yi détails yi génn ci xam nga waaw famille bu baax nga bokk du dëgg ku ne woon na ma wax ma sa famille wax ma lii ñi ma woo bëri nan bëri ngay bokk de xam naa. la ilaha illallah macha allah macha allah.